waaw euh, président Bira bu waxee ba pare ñun amatuñu luñ ci teg parce que mooy suñu kilifa. parce que <clears throat> moom la kilifa yi dénk làmb. donc euh, pour rek def économie bi dañuy jëm ci benn bis boo xam ni muy Papa Sow Siteu euh, ngeen di ay collaborateur parce que ku ni làmb wax presse. moo tax ñu convier leen quand ci rencontre bi pour jox leen. conclusion yi nga xam ni ndaje bi nga xam ni moo doon réunion avec la sécurité ñu daal di leen koy defal leen euh, retour bi. Mm-hmm. donc loolu moo waral teewaay bi. combat Papa Sow Siteu nag dañ ci jël ay matuwaay. Mm-hmm. matuwaay yi mooy lan bu njëkk bi comme journaliste yi laay waxal journaliste yi wutal nañ leen benn place boo xam ni euh, place oui je dis bien oui. Mm. donc place bi dañu ko wut pour que d'une manière organisée ñu installer leen fa doo leen déranger kenn kenn du leen déranger avec la supervision de la police li daan am ci làmb yi nga xam ni jàll na fi muy que ni barrière bi ku nekk ñëw langaamu ci ñiy wéeru ci loolu moom xawma beneen de waaye bii moom doo leen ko ci teg bët incha allahu rabbi cela veut dire muy manager bi di entraîneur yi di borom garam mbubb yi ku nekk na dem yéeg ca kaw cër nag nit a koy jox boppam bala ñu laa xamal sa bopp parce que du ñu jël ay millions dépensé ko ci benn événement yàlla di ñu kàttanal ba bis booba ñëw nit jóge fële naan ñu c'est telle conduite à tenir xëy na li tax nga koy wax c'est conduite boobu moo approprié pour yow mais man en tant que organisateur dama jël bis bi teg ko ci loxoy fallu Ndiaye Assane Ndiaye Khadim Ndiaye ak Yande Diop staffu PAF production day nekk en retrait ça veut pas dire que on ignore beaucoup de choses mais lépp lu ñu gis on ne manquera pas quand même d'apporter des rajustements li ci des nag moom mooy ay collaborateurs ngeen amoon na disposition yoo xam ne jëloon nañ ko bi ma leen di woo pour ñu waxtaan mooy que nii bi ma leen bi ngeen waxee. friction yi ngeen am ak police mani leen c'est parce que gàddu caméra gàddu euh, benn appareil police mënta xam yow yaay kan ci kaw loolu laa waxoon buur ne dinaa ko offrir ay gilet alhamdulilah yàlla mi nga xam ne mooy dogal ak kattanam ak mën man dimbali nañu ba jox naa ko léegi cent gilet yoo xam ne bind nañ ci presse turu seen entreprise bi nag xaw ma société euh, structure bi xaw ko moo tax defuma ko ci après loolu ngeen seet ko ba nga xam ni boo leen jàkkaarloog police tête à dina xam fi ngeen bokk loolu il faut que ngeen dimbali ci te respecter police bi it fi leen ne jaar leen fa ngeen jaar fa bu ma ci kenn woo naan ma jàppale ma ceeg waxal ma lii dimbali ma ci su ma yoon newu ci man bu ma xasee ba dugg fii CNG mooy organiser parce que nag noonu la làmb tëddee manager yi ñi nga xam ni am nañu combat bu seen mbër bëree ba pare dañuy yéeg ils sont obligés dinañ am équipe boo xam ne loolu rek lay wër loolu rek lay toppatoo mbër mi bu bëree ba pare yan waat ay bagages am dinañ ko wutal yoon boo xam ne dina dem yéeg ci kaw dem seetaan lamb ji moom manager bi. cela veut dire que à part journalistes yi ñaari télévision yi nga xam ni dañuy def euh, direct bi parce que pay-per-view la muy ITV ak 2S du ñu permettre kenn mu ut fi benn camp. ak euh, itelepay ak euh, seen affiche point com ñooñu dañuy def benn plateau donc pour xamal leen ne rek mbir la moo xam ne dañ koy teg ci charte euh, mbër yi incha allahu rabbi sécurité bi dana leen jàppale accompagner leen ñu ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm c'est valable pour aussi les amateurs dinañ leen jàppale encadrer leen ñu ñëw ci jàmm pour ñi nga xam ne nag jàmm la ñuy wër si waaw sécurité bi moom ñëwul pour def dara mais nag ku jalgati boo wéeteeg sa bopp xam nga ni da ngay jalgati ku jalgati nag dafa am lu ñu warloo ak yow donc nañ leen jàppalante làmb la dañoo bokk. Euh, yoon wu ñu jëm muy lamb moo leen tax moo leen yitteel ñun ñu nekk ay acteurs nañ leen def benn convergence de vue converger suñu ay efforts ba atteindre suñu ay objectifs. loolu la ñu ni woon dinañ ko waxtaanee waxtaane nañu ko bëgg it lancer un appel li xew ci làmb ji ñaaw na gañeek ñàkk gañe yëpp di dajj ay siis loolu rafetul ñaaw na ci arène boo xam ne 32 milliards la bii mooy suñu première année buñ ko fas yéene exploité pleinement parce que bañ ko ubbee rek dañoo dugg ci mbas mi mhm. kon ñun buñ ko exploité woon année lëmm ba mu jeex xanaa dara dootu fi des donc dafay jaadu yéen ñi nga xam ni yéen la yàlla dénk xarala yi ngeen di jotale ngeen jàpp ci communication bi parce que lii bis bu ñu yàlla nattoo ba décor bi jóge fi ñun nous serons mal accueillis te it su boobaa dootuñu taxawati ci benn sponsor wax ko lu ñuy lu koy convaincre mu jàppale làmb doot suñu image dootul rafetati te gàcce danañu topp ba fu ñu jëm gàcce googu am na ñoo xam duñu recevoir gàcce jàppale leen ñu ci loolu mbër yi yéen ak may dégg euh, waxtaan leen ak seen fan club yi waxtaan leen ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale disposition yi ñu fiy fekk nañ ko respecté respecté sécurité bi respecté infrastructure bi respecté waa CNG respecté promoteur bi nga xam ni. mu bare mu tuuti mooy dem fortaatu ay kopparam am yéene ci tant de mbër yi fi nekk nome la kooku boo ko respecté wul rek boo toogee wéetaat ak sa bopp war ngaa mën a dem tekki sa ngem loolu daal la ñu fi tënk di lancer un appel à la collaboration dans la solidarité une collaboration dans la solidarité cela veut dire une collaboration franche sincère ba bu ma gisee tey Lamine wala gis Pël kenn di ko néewal doole ma mën a simi suma vest bi jël ko kon Papa Sow Siteu yéen dafa am taxawaay boo leen ci war a taxawee dafa am loo leen ci war a wane te su may wax xam ngeen lu tax ma wax loolu moytu leen ñu naan leen yéen ay yàq moytu leen ñu naan yéen yéen ay def lu defuut loolu ça ternit votre image et une image ternie c'est une image boo xam ni. négatif loolu daal laa amoon ci li may wax di leen baalu ak di leen baal ak di leen jox rendez-vous incha allah di jox rendez-vous bokk wax dañ koy defar di jox rendez ñi nga xam ne ñoom lañu ñu accrédité je pèse bien mes mots ñi ñu accrédité gilet gilet yi nos gilets yi c'est pour votre protection c'est pour sauver votre image même là où je ne suis pas ou bien je serai pas là ngeen mën a affirmer wu avec cette identité pour montrer que ni vous êtes dans quelle structure mais ñi ma war a jox sumay accréditation xam nañu ma xam naa leen telle que soit la nature de l'influence telle que soit la proximité que j'aurai avec cette personne ou bien avec cette structure cotise pas njàcc pas merci jërëjëf